xibaar yu wér te wóor ca tang tang ba abonnez-vous pour ngeen di man di jot suñu vidéo fekk mais HCCT bi au conseil des collectivités territoriales Macky Sall requéré. ko a Macky Sall dafa dem ci ay élections 2012 ñu dem ñu dem ci premier tour Macky Sall am 26% dem deuxième tour ak Abdoulaye Wade bi mu deuxième tour ak Abdoulaye Wade Mustapha Niass mom mo jëlone troisième Macky Sall promettre ko ni ko moom bu faloo dana ko def président assemblée nationale. Mhm. waaye nag fi coow li jugee mooy. Mhm. avant élection mille 2009 dafa am benn coalition bu fi nekkoon bu tudd benno Siggil Sénégal. Mhm. Bennoo Siggil Sénégal bi ñu waree dem ci élection 2012 yi ñu ni ñoom dañu war a am benn candidat Moustapha Niass ni moom day nekk candidat du ko bàyyee ak Tanor. Ousmane Tanor Dieng du ko bàyyee ak Moustapha Niass moom tamit day nekk candidat. seen coalition boobu mu tudd Benno Siggil Sénégal am ñaari candidat mhm. ñoom ñaar ñëpp ñu nekk candidat ñu dem ci élection présidentielle yi mhm. Abdoulaye di jël première mhm. Macky Sall jël deuxième Moustapha Niass jël troisième Ousmane Tanor jël quatrième mu promettre Moustapha Niass assemblée nationale bi ñu faloo mu jox ko ko

ngir yóbbu fa koo xamante ni jàpp na ne daf ko soutenir woon mhm. force mu lijjantil ko benn poste de responsabilité boo xam ne dina ko ko mën a jox mu toog fa mhm. bu am solo boo xamante ne dana jàpp ne mhm. xaw na méngoo ak poste bi mu jox Moustapha Niasse ci condition yooyu ci lañ taxawalee HCCT kon du njariñ bu mu amal réew bi moo tax ñu teg ko fi waaye boog dañ ko fi teg ngir koo xamante ne jàpp nga ni daf la jàppale woon nga récompenser ko loolu moo tax ñu teg fi institution boobu benen bi mooy. Mhm. conseil économique social et environnemental. Mhm. institution boobu tamit dañu jàpp ne. Mhm. ñoom dañu fay yóbbu seen ay alliés ñu yóbbu leen fa. boo xoolee institution bi tamit ki ko mujjee jiite Abdoulaye Daouda Diallo. bi ñu nommé Amadou Ba premier ministre. Amadou Ba juboowut ak Abdoulaye Daouda Diallo lu jiitu loolu sax en novembre 2020, bi Idrissa Seck rallié majorité.

benn Bokk Yaakaar novembre deux mille vingt ñu jox ko conseil économique social et environnemental. Hmm. ci septembre deux mille vingt deux Abdoulaye Daouda Diallo bi ñu defee Amadou Ba bi ñu defee Amadou Ba premier ministre ñu xam ne daaw di jàll ak Amadou Ba jubóowuñu kon Abdoulaye Daouda Diallo mënutul nekk ci gouvernement mënul nekk ci gouvernement wu Amadou Ba. Hmm. ñu jëlee ko fa Macky def ko ministre d' état ndax ministre d' premier ministre du nekk sa kilifa président de la république mooy nekk sa kilifa directement. Mhm. mu yóbbu ko fofu bi Idrissa Seck ne dafa bëgg a nekk candidat mu jël institution bi la légui jox ko Abdoulaye Daouda Diallo kon institution yooyu politique moko taxaw tax mhm. mais njariñ bu mu am Sénégalais taxul ñu tek fi institution yooyu. Mhm. institution yooyu nak bu nekk ci ñom ñaar danaka amna budget wu millions. bu nekk ci ñom danaka amna budget wu millions te bo yoron sa micro nga génn ci mbedd mi. Mhm. nga laaj sénégalais yi ni leen. HCCT mhm. lu muy jariñ sénégalais duñ la ko wax boo nee ko CSE lu muy jariñ du ne leen lii la CSE di jariñ. Mhm. kon institution yooyu buñ ko dissoudre sénégalais yi dañ ciy sant yàlla. mais amul dara dara dara dara loo xamante ni dissoudre institution yooyu daf koy wàññi. Benno Bokk Yaakaar nag ñoom li ñu def nii la sénégalais yëpp doon xaar ci ñoom. ndax institution yooyu dafa am ñoo xamante ni. mais nan taxaw foofu benn bokk yaakaar lim def loolu la ñëpp doon xalaat ci moom ah loolu nga wax mais est-ce que gën a wóol itam balaa balaa euh, ki nga xam ne moom moo di président Diomaye di yóbbu projet boobu mu tas assemblée nationale ba noppi. non non promesse promesse électorale la woon. Mhm. dafa nekkoon ci programme. bu coalition Diomaye président mhm. ñu ne bu ñu faloo institution yi nga xamante ni amalul njariñ askan bi mhm. li ko tax a jug mooy caser ay clientèle clientèle politique mhm. institution yooyu dañ koy dissoudre loolu nag waxuñ ci woon ni dañuy bàyyi ba am majorité assemblée nationale wala ñu ñàkk majorité doog koo yóbbu assemblée nationale dañ ni woon bu ngeen ñu joxee réew mi institution yooyu danañ def projet de loi ngir dissoudre ko président de la république loolu la def daa di def projet de loi yóbbu ko assemblée nationale ngir ñu teggi institution yooyu nga xamante ni amalul njariñ mhm. amalul njariñ sénégalais yi loolu nag mhm. ñi nga xamante ni dañ ko lànk mooy ñi nga xamante ni bëgguñu sénégalais yi génn ci jafe-jafe yi bëgguñu ñu jël daanaka vingt milliards yi doon dem ci ñaari institution yooyu yëpp dugal ko ci jafe-jafe yi sénégalais yi mhm. fexe dund gi gën a wàññeeku fexe sénégalais yoo xamante ni dañu ko bëgg muy village yoo xamante ni courant àggu fa ak mhm. dëkk yoo xamante ni mënuñu am potable mhm. ak dëkk yoo xamante ni mënuñu am ay yoon mhm. dëkk yoo xamante ni am nañ jafe-jafe yoo xamante ni waruñu ko woon a am ci deux mille vingt quatre ñu jël alal jooju delloo ko ci sénégalais yi ñoom ñu ni bëgguñu loolu dañu bëgg instruction yooyu di wéy di fa saax waaye ñoom dañu bëgg seen ay nit yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci institution yooyu dañu wëy dañoo wër dañoo dañ fa war a wëy di fa toog mhm. di am ay privilège ñu leen di jox ay oto di leen jox ay salaire yu baax te kenn mënul xam ñii lu ñuy liggéeyal Sénégal mhm. ñoom nee nañ loolu lañu tànn waaye tànn ñu ñu tas loolu jël alal ji fa nekkoon jël alal ji fa nekkoon yóbbu ko ci jafe-jafe yi nga xamante ne sénégalais yi moom moo leen gën a ñor moom moo gën a nekk urgence ñoom mhm. te ñoom cohérence pour cohérence mhm. ñoom bi ñu mhm. en 2012 mhm. dafa am inondation yu métti yu fi amoon Macky Sall fekkoon Abdoulaye Wade def fi Sénat mu dissoudre Sénat bi ñi alal yi ñu doon def ci Sénat bi mom lay def ci inondation yi ngir saafara inondation yi tay nak bu Sénégalais inondation inondation sonalewu len nam leen sonalewu en 2012 waye am yenen jafé jafé yo xamanteni dafa sonal Sénégalais té 20 milliards yoyu, wala 18. dix-neuf milliards yooyu kooku fa dugaloon mën na cee saafara lu baree baree baree bare mhm. loolu nag la waa benn bokk yaakaar ni ñoom fas yéene ko amal waaye dañ fa fas yéene bàyyi seen ay nit ñu toog ca institution yooyu loolu nag sénégalais yi bu ñu leen joxaatee seen ay kat seen seen seen baat mhm. fii ñaari weer muy élection législative anticipée yi nga xamante ni ñëpp xam nañ ni ak communication bi premier ministre def tey. Mhm. xam nañ ni loolu moom dañ fiy dem fii ak ay weer wala boog fii def fii ak fin de la fin d'année bi. Mhm. dinañ dem ci ay élections législatives anticipées. Mhm. élections législatives anticipées yooyu nag bu ci demee. sénégalais yi yi nga xamante ni ñoom ñoo jox cinquante quatre virgule vingt pour cent. coalition président. élection présidentielle yu 24 mars 2024 mille vingt ñooñu danañ jël majorité absolue. jox ko kii nga xamante ni mooy le président de la république Bassirou Diomaye fay ak le premier ministre Ousmane Sonko jox leen majorité ngir li ñu xamante ni dañ ko bëgg réformer ci Sénégal. Mhm. yépp ñu man ko soppi. Mhm. ngir liggéey bi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy liggéeyloo. Mhm. mu bañ a am benn blocage boo xamante ni moom moo nar a bloqué liggéey boobu nga xamante ni ñoom nar nañ ko liggéey.